asalaamaaleykum mbokk téléspectateur di leen dalal jàmm seen émission je t'invite je t'invite nag tey dafa intéressé si benn consortium bu rëy rëy rëy ba nga xamante ne bokk na ci projet yi gënoon rëy si Sénégal nekk ay doomu sénégalais yi nga xamante ne dañoo bëgg servir seen dëkk ñu créé consortium boobu ñuy woowee West Africa Energy ñoom nag dañoo tànn ñu tànn ki nga xamante nag wax dëgg fa yàlla moo ci gën a ndaw pour faram fàcceel ñu lan may consortium West Africa Energy ñu dem léegi gisi ji ko te ñëwaat salaamaaleykum monsieur Ba. maaleykum salaam Anta. na nga def ça va na nga def yaa ci jàmm. si dalal bi ñuy dalal suñu plateau bu Yanji bi si euh, suñu émission je t'invite alors j'espère que yaa ngi si jàmm. maa ngi bu baax sant bu baax. alors kontaan nañ vraiment si ji am lëkkaloo bi ak yow alors monsieur Ba tey nag li waral suñu teewaay mais consortium bi nga xamante ne euh, da nga ci bokk nekk ci actionnaire muy euh, benn centrale électrique bi gën a mag biir Sénégal euh, année 2020 bi nag dañ ciy ràññee ñi nga xamante ne ñoo ko gën a marqué si émission je t'invite alors première question tey jii nii lan moo la poussé pour nga dugg si consortium boobu Euh, Anta maa ngi lay remercier ci opportunité bi ñu jox pour ñu mën a expliquer sénégalais yi lan moo ñu dugal ci euh, secteur énergie bi mais balaa may tàmbale waxtaan bi dama bëggoon euh, déjà sant la mais aussi sant liggéey bi nga xam ni RTS mu ngi koy def quand ci réew mi ndaxte yéen a ngi influencer positivement en tout cas jeunesse yeeg nit ñi di leen informer ci li ñu war a xam. maa ngi aussi profité ci occasion bi bëgg aussi jaal suñu mbokk ñaseen yi ci tiis bi dal seen kaw fan yi nii di ko jaal suñu yaay ji fi jóge di ko jaale en tout cas population sénégalaise bi yëpp ci situation bi aussi bëggoon naa profité massaw ñi nga xam ni mbas bi dal na seen kaw muy ci cadre liggéey bi ci cadre naqar bi ak ñi nga xam ni yàlla jëlee nañ leen fi loolu daal mooy li ma bëggoon a commencer euh, discussion bi su loolu weesoo euh, opportunité bi nga ma jox pour ma mën a expliquer lan moom ma dugal ci secteur de l'énergie bi nii tey opportunité bi ñu amoon tey te liggéey ci benn central central bi nga xam ni mooy centrale bi gën a mag euh, Afrique de l'Ouest boo xam ni ay sénégalais def na ko man yàlla may ma opportunité ma nekk ci ndaw gën ci tuuti waaye séq ko quand ay mag ñoo xam yàlla ràññee waaye aussi ñu nekk ay référence ci dëkk bi ndaxte ñun lépp li ñuy def rek dañuy bëgg mu nekk loo xam ne dañuy influer positivement ci économie wu réew mi et c'était une première hein, opportunité bu mel nii yàlla may ñu ko ñu mën a bokk ci ñi nga xam ni ñooy développer en secteur de l'énergie alors tey jii may fàttali que tey euh, Samuel Sarr Arona Dia ak Ablaye Dia bokk ci euh, consortium boobu euh, West Africa énergie lan ngay yëg en tant que sénégalais si développement Sénégal bi nga xamante ne yaa ngi ciy participer. fierté laa ci njëkk yëg parce que dafa nekk loo xam ni ñëpp dañu ne woon du mën a nekk. ay sénégalais bokk ànd liggéey dara loolu mooy li ci njëkk am. waaye loolu weesu ñu ne centrale bi nga xam ni mu gën a Afrique de l'Ouest parce que tey centrale lu 300 mégawatts xam nga déjà loolu rek euh, fierté la ñu ne ay sénégalais rek ko def waaye muy influer aussi ci population sénégalaise yi ndaxte centrale bi nga xam ne ñun ñu ngi koy def dina wàññi coût électricité bi de presque quarante pour cent te xam nga loolu bu dul dara rek. Mm-hmm. loolu quand même euh, jar na am fierte ndaxte électricité bi bu wàññeekoo rek dinañ am avantage concurrentiel par rapport ak suñu mbokk yeneen réew yi nga xam ni moom la ñu am fii Sénégal. wax nga léegi lu am solo ne euh, centrale boobu moo gën a mag ci Afrique de l'Ouest est-ce que da ngeen nar a yem ci Sénégal rek. déet idée bi nag du du loolu ndaxte xam nga central bi biñ koy defar dafa am dafa dugg ci benn vision parce que xam nga tey Sénégal dañu am benn cadre macroéconomique boo xam ni dafa. clair am benn vision bu leer ndaxte tey nee nañ Sénégal gis nañu gaz gis nañu pétrole gaz boobu ak pétrole boobu ñuy gis normalement dafa war a mën a wàññi suñuy coût ci énergie bi donc ñu nekkoon ñun avantage concurrentiel bi ñuy def mooy defar Sénégal nekk benn hub électrique am nga day tax bu boobaa investisseurs yi mën a ñëw di investir créer seen ay industrie fii ndaxte coût énergie bi day gën a moins cher donc coût de production day wàññeeku loolu bu ñu ko xesee ba am rek ñun am nañ avantage concurrentiel te loolu dina développer économie bi de manière général ndaxte gaz bi duñ ko jënd su ma nee duñ ko jënd façon de parler mais en un coût moindre mm-hmm. mais électricité bi ñuy defar aussi dina gën a moins cher ndaxte coût de transport yeeg yooyu yëpp day dañ donc forcément dina influer ci économie bi influer changé aussi euh, vie wu sénégalais yi daal alors euh, tey euh, Khadim Ba nekk ndaw mais ndaw ba nga xamante ne macha allah day investir nekk euh, actionnaire majoritaire si SAR fan la goût investissement bi fan la jóge non goût investissement bi moom c'est-à-dire opportunité yi rek la ñuy utiliser c'est-à-dire bu ñu amee contrainte contrainte yi la ñuy jéem a créer def ko mu nekk opportunité ndaxte tey boo gisee. opportunité bi ñu am ba mën a dugg saar man bi may jàng Canada di ñibbi si Sénégal 2006 la woon te projet bi ma amoon c'était def Sénégal benn hub mu nekk espèce su Rotterdam d'Afrique noonu laa ko mën a waxee parce que xam nga Rotterdam boo gisee batu yi def pétrole yëpp fa la ñuy daje de foofu la ñuy jël di charger pour mu ñëw feneen man mani Sénégal position géographique bi mu am war na mën a war nañ mën a installer fii mu doon benn hub pétrolier xam nga donc loolu bi ma koy wax 2006 la bi ma ñëwee waaw aw ma possibilité wu loolu def loolu 11 ans après ma benn possibilité bu ma permettre ma mën a euh, jënd action wu groupe benn Laden yi SAR ba tey am ci position biñ ci am nii. alors euh, association bi euh, naka la juddoo. association bi bo ci ay waxtaan la rek a ah. ñu toog nit ñu toog waxtaan ñu bokk am volonté wu changer mbir ndaxte ñun ñëpp dañu am idéologie bu ñu bokk mooy bu ñu àndee bokk dara mën nañ ko réussir jël intéret commun bi teg ko suñu kanam ba pare suñuy intérêt bopp ñu teg ko suñu ginnaaw jël intérêt wu société bi wala intérêt wu réew mi ñu bokk ko ñun ñëpp ndax tey boo gisee ñi nga xam ne ñoo séq tey projet yi yëpp ku nekk ngi yor sa entreprise di ko doxal gis opportunité dugg ci xam nga loolu nekk ay sénégalais def ko donc xam nga tey ñun loolu dañ ko def pour influer ci euh, dundu sénégalais yi noonu la association bi ñëwee ah bëgg def dara rek gise waxtaan bokk gis-gis bokk fu ñu jëm rek ñu ñu ñu ñu song ko voilà. alors euh, Khadim Ba ñu dégg ko aussi en tant que directeur de Locafrique euh, lan mooy Locafrique je sais que da ngeen di def tout ce qui est crédit bail lan mooy crédit bail. bon merci. ci opportunité bi nga ma jox ndaxte bu ñu ne nee Locafrique rek ñu ne euh, crédit bail mais xam nga Locafrique établissement de crédit la xam nga établissement de crédit dafa am classement bu ñu leen def Locafrique nag dafa nekk classement 2 parce que dafa am classement 1 yi woowe banque yi am établissement de crédit yi woowe classement 2 Locafrique nag ci la bokk donc produit yëpp da koy def c'est-à-dire Locafrique dina def prêt afrique dina def crédit bail Locafrique dina def Euh, vente à crédit cest à lépp li banque di def Locafrique da koy def maintenant différence bi nga xam ni moom la Locafrique am ak banque bi mooy Locafrique mënoo fa déposé sa xaalis di defar ay chèques parce que loolu moom la ñu looloo ñu yi ak banque bi donc ñun dañuy jël suñu xaalis dem wuti ay financement di ko dugal di joxaat nit ñi suñu xaalis mooy lebi xaalis pour jël joxaat ko euh, joxaat ko joxaat ko nit ñi mais justement boo leen koy joxaat nit ñi euh, est-ce que dina fa am benn garantie ci ginnaaw mm-hmm. euh, je tam que da ngeen di accompagner nit ñi pour mën a euh, maanaam assurer pérennité wu projet wu nit ki waaw accompagnement bi c'est-à-dire il faut xam ne que amuñu différence trop ak banque bi parce que on est soumis aux mêmes règles banque centrale législateur bi dafa am ay normes yoo xam ni ci la ñu war a liggéeyee ci norme yooyu la Locafrique di liggéeyee xam nga ñu bëri dañuy foog ne différenciation am na peut-être benn différenciation bi am mooy coût de la ressource pour ñun dafa gën a ci ñun donc c'est vrai que bu ñuy lebal nit ñi day gën a cher que par rapport ak banque bi parce que mooy li ma la doon wax léegi ñun dañuy dem lebi ji bu ñu lebee ba pare leblewaat teg ci suñu marge leblewaat avec tous les coûts que ça am amener risques et consorts alors que banque bi da jël déposer def ko donc accompagnement boobu ñuy wax bon euh, yow yaa koy yow yaa koy jéem wutal sa bopp ah, parce que da ngay ñëw proposer ñu dossier ñu xool ko bu ñu doyee ñu dugg ci exactement ni banque bi di def à la différence que ñun difficulté bi ñu am mooy dañuy wuti ji xaalis lebi ji ko pour joxewaat ko donc ñun mënul sax toog ci ñun. mais est-ce que ça veut dire que tey jii nii taux d'intérêt euh, par exemple Locafrique mooy gën a élevé que taux d'intérêt bancaire yi. waaw normalement oui normalement moo tax tey ñun boo gisee Locafrique ci ni ñuy liggéeyee dañuy xool secteurs yi nga xam ni ce sont les secteurs porteurs pour ñun mm. c'est-à-dire tey xam nga mën naa jàpp ne bi ñuy jël euh, Locafrique en 2011 ñun dañu def option ne dañuy dem ci secteur de l'agriculture parce que xam nañ ne banques yi di ñu fa fekk parce que banques yi ñoo ñu ëpp capacité ëpp ñu xaalis am coût de ressources plus faible mais comme les ressources ne sont pas extensibles foofu intéressé wu leen da nga naan xaaral ma dem defi mbay mi te risque ngi ji balaa caag ma toog Dakar avec moyen d'investissement ñun nag ñu ne parce que parce que ñun bi ñu jëlee Locafrique dañ ñëw fekk fa situation bu xaw a compliqué parce que baax na ma def historique bi tuuti ñu xam ko bi ñu jëlee euh, deux mille 2011 ñu fekk société boo xam ni mu ngi am taille de bilan parce que ci banque yi noonu la ñuy xamee capacité wu banque bi taille de bilan wu 3 milliards te ci 3 milliards yooyu ñu am un milliard cinq yëpp baaxul donc benn un milliard cinq boo fa lañ fa fekk bu baax te boobu mooy béykat yi yi nekk ci nooru Sénégal bi mm-hmm. ah ñu ne bon euh, lii peut-être opportunité la entre-temps aussi am ay ressources de la coopération italienne yoo xam ni dañu doon jàppale pour ñu financer justement les secteurs porteur comme agriculture pêche artisanale ak yooyu ah bi ñu ñëwee bon gis ne ñii rek ñooy nekk ñiy fay mooy li ma wax secteur euh, risicole no mais surtout secteur risicole ñi nga xam ne ñooy def ceeb ñu américains yi nag ñëw jël si ma parce que loolu moo gën a moo gën a doy waar non c'est la parce que ñoom ñoo ñëw jël si ma mhm. fekk ma dakaar yóbbu ma Saint-Louis pendant trois jours ñuy def tournée foofu mu yëpp ma trop li ma gis ni nit ñi di liggéeyee foofu opportunité yi am mais man comprendre ma lan moo xew da ngay gis mën naa jox benn exemple tey lu ma gënoon euh, frappé xam nga ñun dakaar rek la ñuy toog jógee dem jàngi ñëw ak yooyu mais da ngay dem euh, Saint-Louis nit ñi di jënd ay machines yu bees tax li ñu naan ay moissonneuse soixante-dix quatre-vingts millions béykat bi ñëw ne la léegi man dama soxla ku ko financé nga ñëw ne ko man pare naa financé ko mais yow da ngay joxe garantie wu 30 pour cent waa ji ne la mayoo ma ñëw dugg ci biir génne la 30 millions ne la mu machine bi laa ñu def ko ay kii yu bëri gis ko affaire bi affaire bi jaaxal ma quoi waaw ma ne ah mais fii moom opportunité la parce que xam naa ne banque yi duñ ma fa fekk banque yi duñ ma fa fekk ma ni ah, ñu ñu exploité ko et aujourd'hui on est fier de dire que euh, autosuffisance en riz luñ ci mënti wax Locafrique ci njëkk te tey euh, les statistiques yi nga xam ne moom la ñu génne quarante pour cent matériel agricole bi nekk Saint-Louis Locafrique ko financé risi euh, kii euh, usines yi defar ceeb bi di koy décortiquer machine moissonneuse yi crédit de campagne yi donc mu nekk loo xam ni ñun fierté lañ ci am di wax li nga xam ni def nañ def nañ ko euh, foofu e opportunité boobu lañ jël ne dañuy concentré wu ci secteur agricole bi ma profito de l'occasion aussi pour wax ne dañuy ni mu cher cher ressource boobu ñun dañ koy rémunérer ndaxte dañuy gis secteur boo xam ne danga naan yow doom ci fekk parce que xaalis bi extensible bi nga tax may dugg foo am kii ñu concentré wu ñun ci secteur agricole bi te am naa fierté bu baax euh, même campagne arachidière bi bi état du Sénégal jëndee jëndaatee Sonacos ñun ñoo ko njëkk financé ak benn ligne crédit wu vingt milliards boo xam ne def nañ ko je pense deux mille quinze ko commencé deux mille quinze 2016 2017 yëpp Locafrique moo ko def ba banques yi ñëw ñu xam ne suñu ressource chère na ñu retiré wu dem investiraat ci yeneen euh, yeneen secteur alors vraiment ñu ngi lay dégg si plusieurs domaines d'activité finance énergie euh, loo jàng bon man nag euh, entrepreneuriat la jàng parce que diplôme bi ma am c'est un BA euh, bachelor euh, en management des hydrocarbures mooy li ma la wax 2006 hydrocarbures bi ma ñëwee jógee hydrocarbures di def ay financement mooy loolu la opportunité yi rek moom ngay jël euh, jéem ko transformer en fait contrainte yi jëm ko transformer en opportunité wala loolu laa jàng mais man nag daa yu bëri nga xamante ne wax dëgg fa yàlla dama ko dégg si wàllum surtout mbas mi mhm. euh, dégg naa ni euh, da jënd benn clinique privée pour mën a appuyer aujourd'hui euh, maanaam de joxe sa sa sa apporter sa pierre à l'édifice si mbas mi est-ce que loolu dëgg la waaw du ma ne jënd waaye am nañ ci participation majoritaire à hauteur de à peu près cinquante pour cent mooy li wax rek contraintes yi la jéem a transformer en opportunité donc euh, waaw dëgg la parce que c'est un hôpital de 200 lits qu'on va essayer de développer avec euh, les gens justement de de General Electric euh, pour mën a def benn hôpital en tout cas référencié de type américain au Sénégal pour créer en tout cas complémentarité bi. alors vraiment c'est-à-dire que tey dama la parce que dañoo am benn jeune entrepreneur kii d'appeler itam jeunesse bi parce que aujourd'hui da nga def euh, da ngay mettre euh, à disposition benn fond euh, pour jeunesse bi dans l'accompagnement justement pour que xale yi mën a maanaam réaliser seen i projet mën nga gën a wax waaw xam nga ci liggéey bi nga xam ni moom laa nekk di liggéey Locafrique mooy li ma la rek dañu am ay contraintes damay gis des fois ay jeunes yuy ñëw am projet bu baax mais financer ko nekk problème ci ñun parce que justement formaliser wuñ bon bi ñuy gis toujours ngay gis quand ñoo xam ni ay jàmbaar lañ ñu ngi def mais formalisation bi problème parce que boo bëggee jàngal nit ki il faut mu nekk ci li euh, ma ko mën expliquer expérience bi muy am ak expertise bi muy am donc ma gisee loolu après de temps en temps y a des sollicitations y a kii ma ni bon est-ce que du ñu jéem a créer ñun suñu benn fonds boo xam ni dañ koy def quand même euh, du ma ne gratuitement parce que duñ ci gagné dara mm-hmm. waaye pour jàppale jeunes yooyu la ñu liggéey fay delloo donc on a décidé de mettre en place fonds boobu à hauteur de xam ne ñun dañ ciy contribuer à hauteur de un milliard tous les ans pour mën a financer en tout cas euh, jeunes yooyu nga xam ni dañu am problème formalisation parce que dañ leen di jàppale ci début bi ñu mën a liggéey fa parce que bu ñu bëggee ñun duñ leen mën parce que xam nga tey fonds boobu xam nga un bëri na bëriwul parce que dafa am fu projet di mën a yem waaye bu ñu bëggee extension pour Locafrique jël parti bi il formalisation am su Locafrique yeggee ba fenn fi dangay ngay da ngay génn Locafrique dem banque ba donc pour màgg dafa am ay process yu bëri yu ñu war a euh, yu ñu war a jaar moo tax waaw c'est c'est dëgg la mais loolu sama contribution laa bëgg a def rek ci lépp li nga xam ni réew maa ngi ma koy indil ma mën ko won sama mbokk jeunes yi que opportunité am na ak ay possibilité am na ci Sénégal bi tey pour revenir un peu si consortium West Africa Énergie euh, sax ko sànq yaa ci gën a nekk ndaw lan mooy sa secret monsieur Ba sama secret <laughs> mais est-ce que réellement secret am na parce que wax ji pour man da ngay gëm sa bopp rek parce que dama nekk koo xam ni li ma yàgg di def dama koy def par passion leneen luy ñëw après lay ñëw mais dama koy def parce que dama bëgg dama am envie réussir ay affaire ñu ne ah réussir na ko xam nga leneen lépp dina ñëw bu ñu nee tabax nañ lii wala defar nañ lii wala participer na ci lii te dama nekk koo xam ni quand même damay euh, daw gàcce waaw wala daw dugg ci dara di ci am jafe-jafe te ñu ñu nekk aussi déjà ay xale xam nga xale dafay yombul quand Sénégal boo nekkee jeune ñu ne mënul wala du ko def wala du ko léegi nag doole boobu moo lay may courage nga mën continuer di def di def pour justement wan ne non mën na nekk te ñun ndaw ñi ñun ñoo ko war a euh, nekkal loolu rek ay bi détermination bi. et tey jii euh, mën naa nekk euh, vous êtes un parfait exemple ci jeunesse tey jii nii j'aimerais bien xam sa avis si émigration clandestine monsieur Ba. pour man émigration clandestine bi euh, ci sama ci sama xalaatu bopp laay wax ah dama jàpp ne que problème mu éducation xam-xam parce que pour man dama jàpp ne nit ñi dañu war a éduquer pour xam ne li ñu yaakaar ne moom la ñuy fekk fële kàttan geeg détermination boobu pour dem buñ ko defee ci réew mi mën a tekki fii man ah, en tout cas man loolay sama loolay sama conviction parce que man c'est vrai que teel naa dem mais li may dem yëpp. parce que 2003 la am 2006 3 ans laa def réellement mais li may dem yëpp maa ngi ñëw parce que dama jàpp ne opportunité yi ma mën a am Sénégal mënu ma ko am fële fële pour man parce que ñun ay sénégalais lañ suñu réew la da ngay bon mën naa am nag des fois mu métti mais nga xeex ko ci say mbokk réussir fii moo ëpp njëriñ que nga dem bitim réew avec des capacités de réussite très minces ci ci loolu laa loolu daal noonu laa ko kiiyee te loolu lay sama xalaat pour man nit ñi dañu war a toog euh, xeex fii parce que yaakaar naa Sénégal lépp dañ ko war a tabax donc opportunité yi am fii amul opportunité fële ndaxte tubaab yi ñu ngi ñëw fii di investir ci ñun di bokk parce que opportunité bi euh, fii la ëppee. alors monsieur Ba dama dégg ci aviation da nga investir ci aviation. bon peut pas euh, investir ah. <laughs> bon <laughs> xam nga ma li opportunité yi rek parce que en en moment euh, dañu gis ne que Sénégal plateforme la avant sax ñoo waxu pétrole Sénégal plateforme la et que les gens travaillent beaucoup ci location wu avion yi bon ñu gis opportunité rek saisir ko way di di ko di ko développer waaw monsieur Ba malgré vraiment say activité yëpp est-ce que monsieur Ba dina am temps pour moom di déglu musique ah waaw wala di di féexal xolam. ah waaw. kan mooy euh, monsieur Ba en dehors tey jii nii de activité yi yëpp. ah euh, bon c'est un jeune comme tous les jeunes hein <laughs> voilà damay damay damay damay déglu musique ah musique yëpp ah euh, damay bon comme tout le monde hein amul benn différence ah. kan mooy ce chanteur. non chanteur nag. mën naa jàpp ne le plus jeune au plus âgé ñëpp ngi ci biir. ñëpp ngi ci biir ngi ci biir. alors pour revenir un peu si consortium bi quelles sont vos perspectives d'avenir lan ngeen euh, ndara def euh, ak seen consortium boobu West Africa Energy. en fait perspective en fait lu ñu perspective yi c'est-à-dire état daf ko tracé ba pare. xam nga su ma ne état bi daf ko tracé ba pare opportunité bi dafa leer ba pare et pour ça on en profite en tout cas la vision parce que président am vision bu leer boo xam ne ko teg mooy li ma doon wax sànq rek xam nga tey Sénégal dafa opportunité ñu ne am na gaz ñu ne léegi am na centrale à gaz xam nga day wàññi coût électricité ku électricité bi boo ko wàññee xam nga nit ñi dañuy coût de production bi day wàññeeku donc dañu am avantage concurrentiel donc ñun suñu stratégie ak li ñu bëgg mooy quand même euh, électricité ñu koy jaayee de Sénégal muy dem ba ci ba ci yeneen dëkk yëpp ah c'est vrai nag lépp mënoo ko loolu mooy stratégie bi nga xam ni ci loolu la ñu mais man fi ma bëgg a rebondir mais par rapport ak euh, maanaam euh, sénégalais yi nga xamante ne euh, maanaam est-ce que am nañu savoir-faire bi fii biir Sénégal est-ce que tey jii am na ay études nga xamante ne permettre na leen de par exemple liggéey pour consortium bi. ou ah je sais que ça commence. ñuy commencé di di indi yenn yenn métiers yi yenn formation yi mais est-ce que ça ressentir nga ko. oui c'est-à-dire que Sénégal. sénégalais yi moom euh, y a des gens qui ont des capacité fii et à l'extérieur aussi ah mais xam nga loo gis rek dafa nekk benn mix bu ñu war a boole euh, entre expertise bi nga xam ni peut-être mën nañ ko jële extérieur mhm. ak formation bi nga xam ni war nañ ko am pour ñu bokk ndaxte bon am na loo xam ni doo ko mën a wax mu ne avantage concurrentiel mhm. xam nga nit ku nekk ci li nga mënee rek ngeen di ngeen di jël bokk pour tabax quelque chose donc ci cadre boobu moom laay wax bu ñu liggéey entreprise yi nga xam ne am nañ expertise plus formation yi nga xam ni sénégalais yi mën nañ ko boole yaakaar naa ne que euh, mbir mi dina dina dina baax waaw. avant ma leen di remercier juste benn question bu ndaw a ndaw ba nga xam ne daf ma rëccoon mi foog ma ma laaj la ko te jii nii euh, monsieur Ba est-ce que euh, sa jeunesse dund nga perte naa ci lu bëri de ah. <laughs> waaw perte naa ci lu bëri moom ça moom loolu moom dëgg la c'est vrai que euh, avant poids des responsabilités yi nga xam ne da nga koy am mooy ak li ma la wax loo xam ni da ngay bañ quand même ñu dénk la dara nga nga bañ ko réussir donc loolu c'est vrai que day jël temps euh, day jël lu bëri maa ngi nii buggoon a nekk ci yeneen waaye mënuma ko ndaxte liggéey bi téye na ma tënk na ma fii euh, jafe na daal. <laughs> justement ça me permet de rebondir tey ban message ngay lancé jeunesse sénégalaise bi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan aux jeunes diplômés à ñi nga xamante ne ils arrivent pas forcément à am benn orientation euh, lan nga leen di lancé comme message. en tout pour man message may lancé c'est très simple affaire bi daal fii la loolu daal laa affaire bi fii la loo ñu waaye bëgg loo ñu xalaat rek fële mën na nekk fii parce que fii lépp dañ ko war a tabax. lépp dañ ko war a tabax te duñu on va pas inventer la ma on va pas inventer la roue te comme niñ koy wax rek euh, àdduna ci loo gis rek ñu théorie du développement rek dañuy copier créer innover jarul ñuy kii dañu xool li nga xam ne moom la tubaab bi di def seen réew wala ñi nga xam ne ñoo ñu gën a avancé ñu copier ko def ko suñu biir réew rek euh, laay wax jeunesse bi rek. d'accord mais monsieur Ba xam nga la moom moo jeexal sànq ba léegi ñu ngi waxtaan mais mënu ma la soutirer benn information mais monsieur Ba lan mooy say distraction. ah bon man déglu musique lu bëri moom dama lay wax rek loolu daal lay def déglu musique daal moom xam naa ne distraction la bon de temps en temps dem plage aussi. Mhm. mais c'est vrai que léegi jot bi maytuma lu bëri. Mhm. loolu daal mooy kii su ma amee su ma ci amee tuuti li may gën a def mooy noppalu ko laay def sànq da nga doon wax euh, par rapport à maanaam li ñu fa fekk euh, environ 3 milliards tey jii nii euh, fan la Locafrique toll. bon euh, actuellement effectivement en 2011 ñu ngi ko ñu ngi ko ak une taille de bilan de 3 milliards dont de 1 milliard 5 yëpp baaxul entre 2011 ak léegi tey fi ñu toll Locafrique y a une taille de bilan de 147 milliards quand même. et aujourd'hui Locafrique mooy premier xam nga loolu sénégalais xam mooy premier établissement de crédit wu zone UEMOA bi yëpp boo ko boole te loolu zone UEMOA yëpp Locafrique mooy premier établissement de de crédit bi te pourtant amuñu amuñu ay dépôt ñu ay kii mais ñu ngi koy développé euh, c'est une structure privée et qui euh, am capacité wu def loolu yëpp te lépp ci biir Sénégal rek parce que nekkuñu di def ay opération en dehors du Sénégal lépp Sénégal lañ ko defee donc ce qui veut dire opportunité ba opportunité baa ngi ci réew mi waaw. Euh, monsieur Bala mooy sama satisfaction bi gën a rëy quand mooy di réussir projet yi nga xam ni à chaque fois nit ñi dañu waxoon duñ ko mën a réussir te benn bi nga xam ne man moom ma tenir à cœur mooy euh, financement wu euh, SAR boobu vraiment. parce que dafa nekk financement wu secteur pétrolier dafa nekk financement boo xam ni toujours tubaab yi ñoo nekkoon di ko def ñun ay sénégalais dañu waxoon duñ ko def non dañu sécuriser importation wu produit pétrolier wu dëkk bi lebal leen financer indi le cest à tey fi ma la mën a waxee nii ñun jot nañu financer rek ça directement mooy carburant pour deux cent quatre-vingt-sept milliards te lépp Sénégal bii rek lañ ko defee ak ay sénégalais et entreprise sénégalaise xam nga loolu ndam la te nit ñi mënuñu xam ne Sénégal loolu yëpp am na fi opportunité yëpp am na fi lépp lépp lépp Sénégal bii rek lañ ko defee. alors tey jii nii euh, ah man di duma la bàyyi nag monsieur monsieur Ba monsieur Ba bëgg naa xam tey jii nii ban anecdote moo la gën a marqué vraiment si sa si sa jeunesse euh, ou euh, ou même si instant yi nii lan moo la gën a marqué. dans dans dans dans dans ta vie. bon sama sama sama jeunesse xam naa ne li ma ci gën a marqué mooy peut-être euh, kilifa yi nga xam ni dañ may gis bu ñu déggee tur bi gis ne ne mais lu ndaw lii la <laughs> waaw loolu moom par contre daf may marqué quoi damay jékki-jékki dugg kenn xool la ne la kii mooy xaadim. <laughs> justement doo ñu raconté foofu benn histoire ba nga xamante ne dund nga ko. am na benn. benn benn PCA wu banque. Uh-huh. gisal fii bon xamuma waaye mu ngi am ku muy waxal ak di wax ak waa ji ba ci àgg ne ko mais d'ailleurs xaadim ba bi ngay wax kii la xam nga tukkuleer yi rek waaye ci ban xaadim bii <laughs> lu ndaw lii te bon dalay lay jàpp parce que loolu ngay gis quand partout muy fii muy bitim réew muy quand de grosses entreprises hein bu may ñëwee bu ma gisee nit ñi damay gis nekk quand même euh, neneen la ñuy xoolee te loolu dafa ça me fait plaisir parce que dangay ngay nekk xale mais sa prouve que on a réussi à bâtir des choses te loolu rek mooy ndam bi nga xam ni moom laa ji anecdote yi daal loolu la bu ñëwee ñu ne lu ndaw li loolu daal moom <laughs> mooy li ma ciy gën a gis quoi waaw. alors vraiment euh, laata ñoo ñoo ñoo pare noo tëj émission bi euh, lan ngay dénk téléspectateurs yi ñu si daal. bon téléspectateurs yi daal li ma leen bëgg a dénk bu baax surtout sama mbokku euh, ndaw yi mooy que dañu war a góorlu am détermination mais aussi roy ci mag yu baax yi fi nekk xool jaar-jaar yi xam ne dara yomb situation moom dana métti waaye da ngay ànd ak détermination xam ne rek da nga bëgg réussir xam nga des fois wax ko yomb na waaye def ko mu jafe te tey yàlla may nañu opportunité ñu yegg fi ñu yegg nii waaye sa n'a pas été euh, un long fleuve tranquille ay jafe-jafe yu bëri ay difficulté yu bëri boole ci nag mooy li ma la rek ñu nekk ay ndaw donc li ma leen di conseiller toujours daal mooy na ñuy jël référence mag ñu baax ñi euh, kilifa yi di xool li ñuy def di ko jéem a adapté ak di déglu aussi ñëpp di observer bañ yàkkamti parce que loo gis rek dafa am temps lu jot rek yomb mais détermination ak euh, euh, mën a en tout cas xaar bañ a yàkkamti que lépp mën na sotti ci lool loolu daal laay laay laay dénk téléspectateurs yi di ko dénk ndaw ñi nag waaw en tout cas laataa ñoo terminé comme nag ñoo dara nag monsieur Ba dañu lay offrir suñu cadeau bi nga xamante ne waa Sartori Sen suñu partenaire waa RTS. may la benn boum euh, d'habillement made in Sénégal. merci beaucoup. et puis euh, vraiment dina jaajëfal si euh, dalal bi ñu dalal fii sa biir kër. Mhm. jërëjëf euh, monsieur Khadim Ba directeur général de Locafrique également nag actionnaire euh, du consortium West Africa énergie actionnaire également de euh, SAR nag du ma lim lépp parce que vraiment macha allah rek laa koy tegal ma leen di wax dig daje pour un autre numéro de Je t'invite à très vite.